noo ngi woon ak yéen ci jubbanti mboor loolee nag moom la nuy fas yéene wéel xanaa di nuyu bokk yi nekk ci kippaangoog ñii safoo xam sam réew tv di kippaangoog ku nekk ci facebook bi ñoom ñëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara kippaango yi mboor yi nuy topp muy sàmm sunu mbatit cosaanu Sénégal di ziyaare waa ëttu diaspora honorable Nango Seck di jébbal nuyo bi ak ziyaare bi Serigne Famara Sow saw social ca Milan di ziyaare Serigne Ahmadou Bamba Mbeng nekk ca Philadelphie ca Amérique Serigne Bassirou Fall ca New York ak waa Kipango support xam sam réew di kuréel gu jóg ngir jàppale seen chaîne bii di xam sam réew TV soxna ummi Sarr nekk ca Los Angeles moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare soxna tuutu Bayre Njaay di ko mboor ñor mu di nu topp moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko bàyyi xel di ko yóbbante ab nuyoo ci ci pàngu gu tudd 33 Damel di nuyu ak a ziyaara sëriñ Abdoul Aziz Touré xalifa sëriñ Adi Touré ci fas Touré di ku ñuy topp mboor ñor ko lool muy défenseuru l'islam di boroom xam-xam di jàngale di siyaare saa njañ se yi nga xamante ni ñoom it dañuy commentaire ci YouTube bi Serigne May Dieng nekk ci marok moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko yóbbante nuyoo ci Serigne Bamba Dramé mbokk yi jubbanti mboor yi dafa ñëw ci ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ay jaar-jaaram ngir dem Gabon muy li tubaab di wax itinéraire loolu dafa bari yu ma ciy dégg wax naa leen nag ni lépp lu ma wax ni dama koy jubbanti rek dama dem ba gis ni dafa dëng ma am fuma ko teg am ay cislay kon jaar jaari sëriñ bi dañ koy def ñaari xaaj muy bi mu bàyyi ko këréb ngee di mbakke bari ba ni mu duggee gaalu géej di bato xaaj bu njëkk bi foofu lañ koy yemale xaajum ñaareel bi bi gaalu géej gi bàyyi ko ndakaaru ak famu jaar ak la ci xew ak gaal ga ci boppam ba ni mu yeggee Gabon mooy doon ñaareelu pàcc bi deuxième épisode bi sëriñ bi xam ngeen ni gaawu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar muy aw diggi diggiw gàmmu dëppoo woon ak fukki fan ci weeru ut ci atum junni ak juróom-ñeent euh, juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom le 10 août 1895 doonoon nisub di samedi Leclerc mi ko doon jël si bi dem nañu kokki ci dimanche ji di fukki fan ak ci août fanaan fa altine fukki fan ak ñaar ci août ci la ñu ñëw Louga dugal sëriñ bi saxaar mu dem Ndar Ndar sëriñ bi def na fa weer ak juróom-ñaari fan ndax fukki fan ak ñaar ci weeru ut la egg ci Ndakaaru ak Leclerc mi ko doon jël si doon l'administrateur de saint ñi ngi ko dugalaat gaal jéeri muy saxaar ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sattunbar ci at moomu di junne juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom alxames le 19 septembre le sëriñ bi bàyyi ko ndar ngir ñëw ndakaaru ndakaaru googu bari na fu ñu wax ni sëriñ ba jaar na fa walla dem na fa dañuy dem sax bay wax ni sëriñ bi def na ñetti guddi ndakaaru ñetti guddi ndakaaru bari na ñu koy wax waaye moom mi nga xamante ni moom lañu doon yóbbu ak werekaanam wii di sëriñ Moussa Ka dey ñoom waxuñu loolu jasaawu sakkoor boobu géej gi sëriñ Moussa Ka daf lay wax ni boo xalamee yaari guddi yi ndakaaru kon waxul yetti guddi yi ndakaaru soo xalamee yaari guddi yi ndakaaru ba dégg wax ji mbir ma wax nga waaru moom aji ki ñuy yóbbu di sëriñ bi itam moom moo bind wax ni alxemes ji mu egsee ndakaaru guddi googu ci néeg bu kiimaane boobee ca la ko fanaan guddi ga ca topp moom moo bind wax ni ca gaalu géej ga ca la ko tubaab yi fanaanal kon ñaari guddi yooyu moom la sëriñ bi def ndakaaru waaye ñetti guddi ndakaaru ya dafa siiw lool jaar-jaar yi sëñ bi jaar biir ndakaaru itam nettali ya bari lool ba boo ko déggee dafay mel ni sëriñ bi dafa ñëwoon ndakaaru doon dox doxub nemmeeku te bu ñu fàtte ni moom day ci ak njafeel la nekkoon li tubaab di wax prisonnier moom la ko tubaab yi jàppe woon li mu wax ci xasidaam googee di asiru ñoom jàppoon nañu ni seenu prisonnier lañ yor ci zahir ci seeni loxo la nekk kon bi mu egsee Ndakaaru prisonnier waruta am liberté goog fu la neex nga dugg fa fu neex nga dem fa tubaab yi ñoo ko tàggalee ak njabootam tubaab yi ñoo jël ab dogal wax ni dañu koy sanki koy génne am réewam kon ci seeni loxo la nekkoon bi mu egsee ndakaaru itam ñoom tubaab yi ñoo ko saytu ba dugal ko ci gaalu géej di bato ngir sëriñ bi war a dem Gabon sëriñ mu Ka ma ngay wax ni واهب موسى سري لتابي مبيخما كروك لمرتلي أسيرو نحما واخ موسى سري واخ موي بور لي هانغ لي انغلي دي هابو mooy por waaye musa yi moom lu ko ci indi ndax baatu wolof la ndax baatu tubaab la wala ndax sëñ Moussa Ka waxu musaasir yi la wax muy porum ndakaaru bii musaasir yi jooju sëriñ Moussa Ka di wax mooy société wala compagnie buñ doon wax messagerie maritime de Marseille compagnie boobu nga xamante ni gaal gi yóbbu sëriñ bi di ville de Pornambouc dem nañu ñoom ba jëndoon ko ba moomal ko seen bopp loolu ci ñaareelu pàcc bi di deuxième épisode bi su ma ñëwee ci jaar-jaar yi bato bi bi mu jëlee sëriñ bi ndakaaru ak fi mu jaar ak sëriñ bi ba ban lël la egg Libreville ca Gabon loolu dana feeñ ca ñaareelu pàcc bi di deuxième épisode bi ndax gaal ga dëkk bu ñuy wax Le Havre ca France la bàyyi ko jaar Bordeaux doog a ñëw Dakar waaye loolu ca ñaareelu pàcc ba dinaa ko leeral ak itinéraire bi nga xamante ni ni ñu koy nettalee dangay jàpp ni sëriñ bi bi mu bàyyi ko Ndakaaru def na weer wala ay weer ci gaal gi dooga egg Gabon ndax dégg naa ñuy jaarale sëriñ bi ba ca Sao Tomé Principe ni jaar na fa loolu danañu ko leeral ci ñaareelu pàcc bi wax sëriñ bi bi mu bàyyi ko ndakaaru ñaata fan la def doog a egg Gabon gaal gi nga xamante ni moo doon yóbbu sëriñ bitam tam dafa siiw am na sax ñu ko bind wax ni gaal gi bi mu ñëwee ba Conakry dafa am ay jafe-jafe dafa yàqu di tubaab di wax paan ba ñu wax ni sëriñ bi dañu ko wàcce dugal ko ci geneen gaal maanaam gaal gi ko jëlee ndakaaru muy ville de Port Nambour yóbbu ko Gabon ndax bi mu ñëwee ba Conakry dafa yàqu ba munta dem ñu wàcc sëriñ bi ci gaal googu dugal ko ci geneen gaal gis naa téere bopp koko ko bind loolu la ci indi indi na ci ay cëslaay ci ay nettali ndax wax na ni am na soxna su wax ni moom ma nga woon ca gaal ga bi gaal gi amee jafe-jafe Conakry geneen gaal lañ leen dugal moo leen yóbbu Gabon toujours damay wax ni nag mboor boo indee say cëslaay sa cëslaay ni fee jële léegi lu ci mën di am yow cëslaay la ñuy toppi waaye wax nga sab source fa nga jëlee waaye ca téere ba ay nit a ko nettali mu bind ko waaye tubaab yi nga xamante ni ñoo yóbbu sëriñ bi te fu ñu mës a jaar bind nañ ko ci rapport wala seen yëglekaay muy seen journaux yi bind nañ ko moom indiwul dellu waayu tubaab yi moom daal dañ koo nettali soxna sudoon dem Gabon nee na moo ko wax ni ko mi ngi woon ci gaal gi bi gaal gi amee jafe-jafe li leen a dugal ci geneen gaal moo leen yóbbu euh, Gabon waaye loolu yépp bu soobe yàlla gaal gi ba mu bàyyi ko Le ñëw Bordeaux ñëw Ndakaaru ba na mu egg Libreville danañu leen wax le lieu danañu leen wax sax bu ko jaree ñi nekkoon ci gaal gi te ji ci ëpp doon ay kilifa yi tubaab ay administrateur yi colonial bari woon nañ ci gaal waaye ni ma leen waxit ni jubbanti bi ñaari pàcc lay doon pàcc bu njëkk bi mooy bi sëriñ bi bàyyi ko Mbàkke Bari ba ni mu ñëwee Ndakaaru waaye nañu jàpp ni daal ñetti guddi Ndakaaru moom ay wax la waaye sëriñ bi ñaari guddi la def ndakaaru alxemes fukki fan ak juróom-ñeent ci sattun mbar jeudi le 19 septembre le sëriñ bi bàyyi ko ndar ci saxaar boobu dafa woor ba muy egsi tasanteeg dog di jot ci la ñu ko woolu yóbbu ko ci néeg boobu nga xamante ni léegi wax nañu ni ci kan jal joob la nekk di néeg bu doy waar boobu sëñ Moussa Ka indi na ko mu ci gisaawu Sakkoor kon nanu jàpp ni sëriñ bi deful ndakaaru ñetti guddi waaye ñaari guddi la def ndakaaru te moo ko bindal boppam kon ñaareelu pàcc bi muy deuxième épisode bi topp ci bii nag ci la ñuy ñëw ak yéen ci li tubaab di wax itinéraire maanaam wax nañ leen sëñ bi bi mu jógee Mbàkke Bari jaar na Kokki jaar na Louga doog a ñëw Ndar ñu jëlee ko fa jeudi le 19 septembre 1895 indi ko Ndakaaru kon ci ñaareelu pàcc bi danañu indi bato bi nga xamante ni wax nañ ne dafa yàqu ñu dugal leen ci beneen bato loolu danañ ko leeral ma xam ndax noonu la demee walla déet dëkk yu bari yi nga xamante ni jaareel nañ fa sëñ bi ci ay nettali itam danañu ci ñëw ba xam noonu la demee wala déet kon mbokk yi da ngeen nuy nekk ci ñaareelu pàcc bi nu ànd ak yéen ci li ci bàyyi ko sëriñ bi Sénégal ngir dem Gabon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen wax ngeen abonné gi seen chaîne bi rek ndax vidéo bu ñu dugal ngeen man koo am maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf